ndax war nga mën a wax gàtt sa gàtt sa ba pare taxaw naan ay dañ ma wax sama doom dafa war a jàngi wala nangam est-ce que li nga woote waruloo ci dem lan nga war a def. kooku mooy benn ñaareel bi mooy. kaddu yi nga xam ni Barthélemy wax na ko ci mandat bi kaddu yi nga xam ni moom Ousmane Sonko wax na ko ci mandat bi loo ci wax ci loolu. waa dama ne man loolu ba ñu ko waxee à l'époque j'avais dit que d'accord ma ci seen position boobu. c'est pas une position que je partage. j'ai jamais partagé cette position effectivement ñoo ko wax. ñoo ko wax loolu mooy dëgg non waaw mais ñoo ko wax mais mais man dama lay wax li ma gëm da nga laaj li ma gëm lu ma ci xalaat nga ma laaj d'accord ma ci. parce que lu tax d'accord ma ci mooy peut-être euh, seen compréhension de de l'article 27 moo leerul mais l'article 27 ponkal yi ma dégg ci droit ñu wax ci yépp ñoo xam ne faruñu ñu a des universitaires qui sont qui sont là qui ont fait des sur l'article 27. booy wër non ñi farul dama la bëggoon ne ay ay universitaire waaw moom laa lay wax dama la ah. ñoom ñoo ko wax mais dama la loolu ñu wax xëy na seen xarañte ci droit moo àggul foo xam mën nañ def une bonne interprétation de la loi mais dama ni l'article 27 ponk li ma dégg ci ci droit constitutionnel ñu wax ci fii ci Sénégal def ci article ma liir ko li ñu wax lu leer naññ la la nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs c'était une révision constitutionnelle contrairement ak euh, li Aïssata Tall Sall wax ministre des affaires étrangères non dama ni dañ ko caa sukkandiku mais c'est une révision constitutionnelle ce n'est pas une nouvelle constitution la constitution de 2001 moo ko leeral dafa au contraire dañ ko gën a dëgëral sax c'est-à-dire que ñaari mandat yi kenn mënu koo tëb kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo loolu moo leer nañ maintenant gatsa gatsa bi mais gatsa bi